mbokk yi premier combat baa noonu dox ci dikk journée LP production Pape Bou Ndaw ak John Sina mbokk yi Pape Bou Ndaw moo ñu woon ginnaaw John Sina lanu jaakaar lool xale yaa ngay lewaatoo Pape Bou Ndaw John Sina Saamu Ndaw waat na ko ci diggi géew bi Pape bu Ndaw John Sina eh John Sina door na léegi door na arrêt de gauche Pape bu Ndaw dox ci kawam John Sina daa bëgg a xeex ba jàppante na Pape bu Ndaw jàpp na. wala boog John Sina jàpp na Pape Ndaw jàppagul fenn John Sina lu mu ko bëgg a def da koo bëgg a caxabal eh John mi affaire biij na ko mbaa doole du ca feeñ mbaa doole du ca feeñ. Pape Ndaw biij na ko génn nañu eh John mi affaire de. jàpp na ko eh. John Sina door na ko góosu waat Pape Bou Ndaw atul Pape Bou Ndaw atul John Sina mi koy biij doole la ko bëgg a jaay. sew diis la. sew diis la moos. Pape Bou Ndaw John Sina. naamali soxor na de. kooxoy moo daan ta. Pape Ndaw jon Sina. génnee na ko puus ko mu génn. da nga jël avertissement. Pape mu ndaw. Pape mu ndaw mi sew la am sew diis. mais na ko léegi ay gauche droite yu daal. kenn na ko ba rase yëngu rase yi. Mbaaru daa gësamu. <laughs> daa gësamu comme Gris Bordeaux ba tey làmb ji jeex na. waaw xajoon na fi. da koy caxabal wala mu jegal ko yaramam ba mu jegal ko mu sées ko. bu taxawal bee gën a moo non jege sax daa leer nañ te bu koy taxawal di ko wéeru muy tëdd day arrière ba toog. xale bu ñu bëree nañu suivre. Pape bu ndaw John Sina. loxo yi génnee génn nañu. taxaba daan na ko eh lan moo xew daanoogul jël am na Pape mu ndaw daan na ko wala daanagu ko abit yaa ngi consulté wu seen biir ku daan wala ku daanu waaw Pape mu ndaw Pape mu ndaw daan na John Sina waaye dañ nga coono John Sina na la ba ngay